salaamaaleykum euh, waa euh, téléspectateur u Leral TV euh, yi nekk fii ci Sénégal ak bitim réew ak fépp fuñ ci nekk si àdduna man Abdoulaye ñaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar aussi ci fin d'année bi di wax ne tey bëgg naa leen jox sama xalaat bu gàtt rek ci li jot a xew ci at mi. waaw xam nga euh, wax dëgg yàlla lépp lu nga xamante ne nii ci Covid 19 bi dañ ko teg ngir euh, jàppale askan wi ñun dañ koy rafetlu donc euh, bi président tegee plan de résilience bi ak force Covid 19 bi lépp suivre nañ ko rafetlu woon nañ koom boobu ñu mobiliser pour Sénégal mais nag. bu ñu waxee loolu dañuy gëstu aussi li xew li xew mooy euh, riposte Covid 19 bi bi nga xam ne nii personnel médical conduire nañ ko maanaam ñoo ngi ko doon doxal loolu kontaan nañ ci rafetlu nañ ko ndax xam-xam lañ ci doon doxal ak yéene dëgg-dëgg ngir régler problème mu Sénégal par contre euh, xaalis bi ñu mobiliser woon dañu rendre compte ne euh, anam yi mu waroon a jaar ba mu leer askan wi. ñu leeral yëpp wax fi mu dugg des na ndax boo xoolee par exemple nee nañ entreprise yi jox nañ leen trois cent vingt milliards yoo xam ne dañ leen a fay ay bor yu état amoon ci euh, dette intérieure bi entreprise yooyu yan la trois cent vingt milliards yi lan lañ ci am euh, bor bi kañ la loolu yëpp dafa waroon leer jël nañ aussi xaalis jënd ci ceeb jënd ci diwlin jënd ci ay mbir pour jox ko population bi xaalis boobu tam bëggoon nañ ñu xam euh, fan la dem ñan ñoo nekkoon bénéficiaires yi ak naka la ñu fexe ba transport beeg yooyu yëpp ñu fay ko loolu yëpp dafa amoon solo ca njalbeen ga sax dafa waroon a am ay ay marché yu leer euh, attribution yu leer loolu peut-être rëcc nañu mais au moins bu fekkee ne urgence moo koy justifier bi urgence bi jeexee ñu wax ñu xaalis bi fan la dugg donc loolu yëpp dafa nekk ay rëq-rëq ci gestion mille milliards yooyu ñu mobiliser woon pour euh, Covid 19 bi te loolu kaaru budget état bi la. ci dëkk bu mel ne Sénégal di dëkk boo xamante ne nii bariwul doole soo mobiliser kaaru budget bi nga def ko ci euh, Covid 19 mën nañ wax ne loo mobiliser doyul mais nag na nga expliquer après fu mu dugg sinon malheureusement xel day tey euh, te Sénégal soxlawuñ loolu. waaw xam nga problème bi sax mooy ñun dañu yàkkamti parce que avant Covid bi jeex rek ñi ngi duggaat ci beneen euh, procédure. naan ay programme d'action prioritaire accéléré ak xawma lan ñun dañu bëgg ay ay ay ay ay ay sigle malheureusement Sénégal loolu mooy suñu problème ay sigle la ñu bëgg euh, parce que gestion état du ay caaxaan du ay slogan du ay symbole concentration la effort dans le temps la patience la euh, pour man li amoon solo rek mooy euh, bi ñu génnee ci première phase Covid bi ñu defaraat seen plan ba mu leer ñu continuer parce que plan planification ak ak ak ak amélioration ak évaluation ñoo ànd jarul ñu koy rebaptiser ñu koy ñu koy tuddaat maintenant beneen aspect bi mooy euh, dañ ne plan boobu ci production intérieure la tourner sur le plan sanitaire ñu am indépendance sur le plan alimentaire ñu am indépendance fexe ba secteur privé national ñu dooleel ko loolu la ñu wax donc day jël contre totale ci première phase bi parce que première phase bi lépp li nga xamante ni liñ ko doon def daanaka extérieur la woon boo xoolee euh, presque les gros travaux yi am jam ñaajoog yooyu yëpp tubaab yi la ak turquie yeeg yu demee noonu donc au moins critique yi ñu doon def daan ne croissance bi day génn réew mi jéem nañ ko euh, xoolaat daan ne nañ nañ nañ fexee dooleel secteur privé national loolu dañ koy rafetlu mais nag malheureusement euh, ñoom dañu teel a chanter victoire parce que première phase Covid bi bi mu jàllee dañu waroon tey gouverner c'est prévoir c'est être aussi prudent deuxième phase bi dafa ñëw rapidement fekk ñoom ñu annoncé seen euh, euh, PAP 2A bi annoncé aussi ne dinañ am en deux mille vingt et un une croissance de euh, cinq six ba sept pour cent ñu koy annoncé te li yàqoon suñu croissance deux mille vingt ba ñu nekk à moins un pour cent de récession malheureusement moo fi nekk toujours donc nañuy tey jël la gestion de l'État avec beaucoup de rigueur et de sérieux loolu moom manqué Sénégal waaw mais xam nga man li ma gis rek mooy effectivement nañu dooleel suñu secteur privé national nañu dooleel suñu agriculture diversification agricole ba am sécurité alimentaire fexe ba agriculture bi bañ a nekk agriculture hivernage kese mais nag ñu am maitrise de l'eau bay noor bay nawet loolu c'est extrêmement important parce que mbay mi euh, mooy 18 pour cent PIB la maanaam fukk ak juróom-ñett euh, téeméer boo am ci richesse Sénégal ci koom fukk ak juróom-ñett yi moom la mbay mi am te juróom fukk téeméer boo jël juróom fukki nit yi ñi ngi ci àll bi ça signifie juróom fukki nit yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi séddoo fukk ak ñett ci téeméer bu nekk loolu dafa tuuti donc mbay mi amagul doole ji mu war a am te nit ñi ñi ngi ci àll bi ñi ngi bay cinquante pour cent de la population donc war nañ dooleel mbay mi pour dooleel sénégalais yi pour xeex ndool loolu c'est important maintenant bu loolu jàllee aussi ñu def bonne gouvernance bonne gouvernance maanaam ñu xam fu ñuy teg suñu tànk jéego yi leer bañ a précipité dara bañ a def politique politicienne ci gestion état euh, jéem a xool budget bi aussi niñ koy gérer parce que budget bi ñu amoon daaw ak daaw jéeg ak bu reen bi daanaka benn la bu reen bi sax moo yées parce que dañuy jël lu mel ne ay 16 ak ak ak ak HCCT di leen joxaat xaalis di leen yokk sax seen budget alors que réew mi dafa toll période boo xamante ne ni économie bi doxul Euh, fexe jàppale sénégalais yi donc nañu changer budget nañu changer vision économique jàpp ne euh, Sénégal dafa nekk ci monde bu bees monde Covid monde bu bees la ah réew yi dañu tëju ci seen biir réew yi seen bopp la ñuy xalaat Covid bi wane na ko ñun tam nañ xalaat suñu bopp xalaat Afrique ànd ak suñu mbokki africains yi beneen aspect bi 2019 deux 2020 euh, mooy 75 ans wu. Euh, signature accord monétaire ak France ci franc CFA 45 lañ ko signé woon 75 ans yi donc accord monétaire yi bi yoon at mi waroon a jeex Côte d'Ivoire Alassane Ouattara dem daal di signé Macron donc loolu muy lu graaw a graaw a graaw muy trahison par rapport au peuple africain parce que xam nañ ne bu ñu amul politique monétaire du ñu mën a am koom bu baax or suñu politique monétaire France def ci teg tànkam pour man loolu war nañ ko xoolaat waxuma ne nag ñu dagg suñu relation ak France man nekkuma ci extrémisme li ma wax rek mooy war nañ xoolaat suñu relation ba ñu gis ci suñu bopp suñu économie ñu mën ko ci doxal ba ñun duñu duñu duñu loru te duñ leen lor ñoom itam di gêné wu di def ay embarcation di dugg biir pareeg yu demee noonu loolu yëpp pour ñu éviter ko il faut ñu bàyyi ñun ñu doxal suñu réew wala boog ñun ñu foqar ci suñu indépendance doxal suñu réew pour ñoom ñu am jàmm ñun ñu am jàmm xam nga coalition jot na moom euh, ñun ci continuité lañ nekk parce que euh, depuis euh, suñu nouvelle phase bi ñu entamé il un à deux mois dafa fekkoon ñu saytu woon coalition bi ba fi ñu jëm yëpp ñu tracé woon ko daanaka toogoon nañ at boo xamante ni ci loolu lañ nekkoon donc rëg-rëg yi amoon dafa fekk ñun ñu pare woon pour doxal moo tax effectivement force lañ ñëwee sur la scène publique xam nañ fi ñu jëm am nañ ambition bu ñu te ñoo ngi ñaan yàlla dëgëral ñu bu ñu yàlla dëgëralee dinañ won sénégalais yi euh, Pastef dinañ leen won euh, mat gu euh, gu mat sëkk ci défendre seeni intérêt dinañ leen présenter suñu programme wër Sénégal aussi ba pare tàllal suñu loxo nag tous les acteurs politiques yi nga xamante ne nii bëgg nañ beneen façon de fair la politique beneen façon de s'opposer avec beaucoup de responsabilité mais beaucoup de rigueur boo xamante ne nii ñii kat dinañ ne seeni loxo set nañ te ay kilifa lañ ku leen joxoon réew mi tey dinañ ko doxal ñun façon opposition boobu lañ indi Sénégal moom lañ nar a doxal euh, te itam nag di wax ne effectivement pouvoir bi fi nekk Sénégal mérite na lu ko gën donc ñun programme alternatif bi dinañ ko présenter Sénégal yi dinañ ko dox dinañ ko wax te jàpp naa ne Sénégal yi dinañu déglu. waaw xam nga at mu bees la 2021. Euh, ñu génn ci at mu metti boo xamante ni maa ngi jàll Sénégal euh, kilifa yi fii génne euh, le maire Diallo ki démb moo ci mujj euh, yaa Seyda Mariama Niass mi ngi fii général Niang ak ñeneen ak ñeneen 2020 ñenn ñi gën ci Sénégalais yi moom la Covid bi yóbbu kon maa ngi leen di jaale ba pare nag di ñaan yàlla 2021 lii nekk suñu ginnaaw ñu commencé waat une année de paix de prospérité et de santé ñaan yàlla coono yii ñu nekk yàlla génn ñu ci élection locale yi ñu def ko fal ay maire yoo xamante ne nii yu déglu askan wi lay doon maire yoo xamante ni ñu yërëm askan wi lay doon yeneen élection yi ñëw itam euh, élection locale yi nekk commencement pour Sénégal changer am beneen personnel politique de qualité boo xamante ni jàpp naa ne jot na ñoo ci war a jiitu jërëjëf